Condé daan nay wax ne réew mi di Guinée bëri na ñoo xam ne dañoo bëggoon mu tàkk bëri na ñoo xam ne dañu ma doon komplo te loolee lépp Sénégal la doon bàyyi ko moom Alpha Condé nee na ñi nga xam ne ñoo koy saaga di ko yéene aw ay yépp maanaam Sénégal lay bàyyi ko moom Alpha Condé nee na yàlla gëmul ne la wula te yéene nekk borooma say fanaan moom Alpha Condé nee na ñi nga xamante ni ñoo ko yéene woon aw safaan la nga xam ne moo xew seenum réew maanaam ñëpp gis nañ ko yéene kaay gi di réew mi ko di jëlee ci xëlim ak Assane Samb nee na lii nga xam ne moo am diggante Alpha Condé ak njiitu mi di président Macky Sall ba njiitu réewam Guinée ne tëj ràpp li nga xam ne mooy frontières yi bañ koo ubbi loole nag maître Abdoulaye Wade moo si mën a def li nga xam ne mooy ab médiation ndax ki nga xam ne mooy Alpha Condé lenn kese rek dong la jàpp ka ne Macky Sall daf koy complot yéene kaay di Dakar Times nee na nag kàddu yi nga xam ne Alpha Condé yëkkati na ko jëmale ko ci Sénégal loole nag naqari na lool lool ñi nga xamante ni maanaam ñooy ku jëkk nekk ca Guinée Conakry yéene kaay gi di enquête wax ci réewum Sénégal ndax am nañ lu ñu doy sëkk yéene kaay gi ne na lu jëm ci boole élection locale yi ak élection législative yi loole impossible consensus maanaam nag déggoo mënu cee am diggante pouvoir bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jege ndax ci Sénégal ñoo ngi rumandaat ne dañoo bëgg boole li nga xam ne maanaam mooy élection locale yi ak élection législative yi yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na Issa Sall mi nga xam ne pur ba nga xam ne amoon na ko mandat député ba jamono ji daan na koy ñàkk yéen a gi nee na Déthié Fall mi nga xam ne moo jóge ci parti Rewmi bi Idrissa Seck jamono ji ay mbiram ñoo ngi koy càmbara yéen a kaay gi de la Tribune nee na Issa Sall sax moom nekk ministre conseil la woon wan yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu drogue bi nga xamante ni mooy jaaba jonge ci àdduna bi bëri na ñoo xamante ni drogue bi ma ngi leen di rey yéen kaay gi nee na drogue bi nag day rey te du si boole wax ju bari melul ni coronavirus yéen kaay gi nee na am na benn rapport boo xamante ni organisation internationale bi nga xam ne mooy saytu di contrôle lépp loo xam ne jëm na ci wàllum drogue ñoom ñoo ko xamle nee nañu daal ci àdduna bi drogue xam ne ñoo ngi leen di rey rawatina mag ñi maanaam épidémie la yéen kaay gi du l'observateur xëy yóbbu ñu diwaanu jawbe jawbe lu neex fa ñi nga xam na ñooy samba boy yi jamono ji nag ñoo fay lëmbe maanaam di ciblé nag ñi nga xamante ni maanaam ñooy commerçant yi lépp loo xamante ni yore nañu ko samba boy yi nag daal di dogale nee ma bandi yi yéen kaay gi nee na manifestation yi nga xam ne moo xewoon ci réewum Sénégal gendarmerie bu jawbe dañu koo taaloon loole nag jamono ji tax na ñi nga xam ne ñooy askan wa dañoo tiit ba maara day ndax amuñu ñu yor seen kaaraange yéen kaay nga xam ne mooy Ousmane Sénégal ñi nga xam ne ñooy ay avocat ma maanaam fii ak ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru avril mën nañoo def nag li nga xam ne mooy appel ba pare firndeel ne Ousmane du ab terroriste lu may loolee rek dinañu ko indi ci réew mi yéen kaay gi di xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ay jege ñaale ma ba léegi ne génn guñ ca mballage ndax Jibi Gueye Ndiaye mi nga xam ne mooy chef protocole bu njiitul Pastef moom tey jëlañu ko convoqué ci ci manifestation bu responsable politique APR nee na xaalis bi nga xamante ni dugal nañ ko ci lu jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi loolee xaalis ba dañu ko war a càmbar ndax mënuñoo jël ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards dugal ko ci ñi nga xamante ni maanaam ñooy ndaw ñi te ba léegi nii ndaw ñi wéy di am ay jafe-jafe xaalis boobee dañu ko war a saytu yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy duñu ñi nga xam ne ñoo amee insuffisance rénale ci réewum Sénégal at mu jot gën di yokk yéen gi di source xëy ci match nga xam ne moo doon dox diggante Sénégal ak Eswatini yéen a kaay gi nee làmbatu dëgg la Aliou Cissé doon def Aliou Cissé démb dafa mel ni nag maanaam ab bato bato bu réer ci biirum ndox wayang-wayange di lambar-lambar yéen a na Aliou Cissé maanaam sorewut ak gaal gu réer ci biirum ndax mboolem système boo ne am na ci wàllum football ni ki démb Aliou Cissé essayé na ko yéen a kaa gi na loole nag dafay firndeel ne Aliou Cissé xamul dara maanaam tatone làmbatu la Aliou la latéral gauche bu la jëlee latéral gauche yóbbu la latéral droite loole nag la te nag arbitre bi maanaam ki doon arbitre moo jàppale Sénégal arbitre bi Sénégal la faral yéene kaay gi nee na match bi dem na quatre-vingt-quinze minutes arbitre bi lànk bañ a siffle li nga xam ne maanaam mooy fin de match ngir nag Sénégal mën a def li nga xam ne mooy ab hold up yéene kaay gi di esaat nee na Sénégal dafa rëcce équipe nationale bu amul kenn kenn koo xamante ni équipe bi ni ki démb yay na la ay joueurs yoo xam ne ñoo nekkoon ci biir terrain bi kenn xamul lan la nga xamante ni moo am ci équipe nationale bi maanaam munta ñàkk ñu